leen jaajëfalaat bu baax yéen suñu internet ñuy topp fii ci Leewtoo TV chaque jour nag ngir leen indil li gën a fës ci bopp xibaar yi di leen nuyu di yéen topp bi ngeen ñu topp fii ci Leewtoo TV ci noonu nag damay nuyu ñu ma toogal rek fas yéene leen li gën a fës ci bopp xibaar yi Mbaye Babacar nuyu naa la. jërëjëf euh, Ndeye Mbacke fay naa la nuyu bu baax suñu mbokk yépp ñuy topp ci Leewtoo TV ñaana leen jàmm ak salaam di nuyu bu baax waa Diourbel sama dëkk. Assane Waalo maa ngi lay nuyu. Demba euh, maa lay fay di nuyu Mbaye Babacar amaan mbégte jàkkaarloog internetu Leewtoo TV. te noonu ah, seen revue bi huile Jador moo leen koy may chaque jour nee naa mooy durin bi gën ci durin nii mën ci durin nii Mbaye loolu ñu indi ci Jador leen wax ne rek ne di leen wax ne euh, fi ngeen ko jàpp foofu la ndax gis ngeen gis ngeen njariñ li ci nekk huile Jador mooy huile bi nga xam ne képp ku muy gunge ci sa biir waañ foo mën di génn ndam rek ngay jël. ma doon nag ca la ñuy xëyee mooy ginnaaw ba ministre de la justice génnee wax mbëri yi mer ba futtu ku ci mel ni Yaxya Diop Yékini l'ancien roi des arènes àdduna ci Mbaye Babacar moo gis ne la euh, ministre bi wax rek tegu ko fenn. Euh, Yaxya Diop moo yëkkati yooyu la kàddu nee na euh, ministre de la justice li mu wax ay kàddu la ya nga xamante ne bii teggunuwul ba pare amul benn sens te it amul benn fondement ba nga xamante ne bii mën nañ ko cee jàpp asal dëgg la Mbaye Babacar ni nga ko waxee noonu la ginnaaw bi ministre de la justice Malick euh, Sall yooyu kàddoom yooyu Yaxya Diop Yékini euh, répondre na ko maanaam tontu na ko tey nag ni moom moo nekkoon invité RFM euh, matin léegi Leewtoo point net reprendre waxam jooju Yékini daal lu mu fa wax nee ne waxu ministre bi amul sens amul benn fondement te moom wax jooju considéré wu ko waaye nag ni invité na mbër yi ñu defaraat seen toogaay ba prochainement kuy attaqué. sori waa làmb wax na fa également problème bi mu fa amoon ci diiran manifestation yi maanaam xaañ bi ñu ko fa xaañoon nee na benn xaritam bu tudd Jean Baptiste da doon aidé benn station la doon taal mu dem di ko jàppale ba xaañu fa noonu. mel ne da doon nu koy waxee da doon da doon da doon wallu xaritam. da doon wallu da doon wallu waaye gars yi booy yi bàyyiwuñ ko ci noonu. <laughs> booy de xàmmeetuñu kenn bu ñu meree suñu làmb mu ngi noonu ba mu xëyee ci xëtam mu njëkk bientôt à l'Incept de Paris Balla Gaye va se tuer en boxe et en lutte grecque rien que pour baat la B52 de Mbour. Balla Gaye ñu mën koo xaar fan yu néew fële ca Incept bu Paris muy waajal nag combat bu mag boobu di dox ci digganteem ak Bombardier mu fas yéene fa mu fas yéene gën a ciblé ñaari ñaari ñaari ñaari point yi muy lutte euh, muy muy euh, boxe ak li nga xamante ne bii moom mooy euh, lutte gréco-romaine di façon li bëre ba nga xamante ne bii ku xarañul mënoo ko asal dëgg la Mbaye Babacar comme ni nga ko xamee ba Balla Gaye 2 war na dajeek Bombardier ci benn combat revanche pour que mu préparer combat boobu nag ba mu Balla Gaye moom nee neen war na dem sa INSEPS INSEPS moom mooy institut national du sport de l'expertise et de la performance bu France ay tàggatkat ñoo fay nekk di tàggatu pour mën a préparer seen combat suñu làmb nag nee ne Balla bu fa demee boxe lay def ak lutte gréco man pour que bu ñëwee contre Bombardier mu mën a def affaire ndax ñu fàttali que ne Bombardier daane woon na ko le 18 juin 2014 donc ba Balla Gaye war na jëli revanche am ku ko gis ci waajtaay yi muy waaj nga xam ne combat bi am na lu mu ko jaral am na lu mu ko jaral dafa amoon défaite ci Bombardier te objectif bi mu am mooy jël revanche te ba ba Balla Gaye xam nañ ko nit koo xam ne nii boo ko daanee day bëgg kut ka kut daanee la moom it ni ci kanam rawuti bët rawulu bit yàggatul ay weer rek moo ci des ñu si ñu suivre leen incha allah incha allah fa Balla Gaye di préparé nag ñëpp pare pare pour jàkkaarloo mooy France France ak Tyson de Garga de Malamine face to face de tous les dangers ce soir dans les locaux de Equivox TV. mu mel ni ñoom ñaar pare nañu Balla Gaye ma ngay waajal mais ñoom ñaar ñi tey buñ leen ne woon combat bi. tey ci ngoon la wala suba ci suba la ñoom pare nañu ba tax na ñu war a amal seen face à face incha allah bu ci yàlla àndee tey ci ngoon muy dox ci diggante Franc ak kii di euh, Tyson de wante Mama Lamine war fa daje ak Garga loolu war a am fële ca euh, Equivox. dëgg la may Babacar Alioune Badara Diouf moom mooy patron Equivox ak Vox Arena moom moo tëgg combat bi tey nag dafa woo mbër yi di Franc ak euh, Tyson 2. Garga de Mama Lamine ak Noiro Moustique Alliance Biram Caatu Ngéwal Fourière Baye Mandione Junior ñi ñii la woo tey euh, foofa sa Equivox à partir de 16h ci benn face à face suñu làmb nag nee ne face à face bi moom mooy face à face de tous les dangers. mu mel ni dana tàng jër. dina tàng Mama Lamine ak euh, Garga de fu daje euh, Tyson de ak Franc daje fa foofu faw mu tàng mu ngi noonu benn victoire la am. quatre défaites en dix ans tonnerre le dragon rouge ne crache plus du feu noonu la ko suñu journal suñu mu mel ni mbër mi di euh, tonnerre nga xam ne ràññee woon nañ ko bu baax ci làmb ji. mu doon def nag ay euh, performance yu am solo wante mën na noo jàpp fukki at yi ñu génn kenn xàmmeetu ko ndax benn victoire la ci am wante am na ci li nga xamante ne bii moom mooy ñeenti jël asam dëgg la Mbaye Babacar de 2011 à 2021 suñu laamu nee ne Tonnerre cinq combats la ci def benn victoire la ci am quatre défaites nee na daal euh, tonnerre mooy dragon rouge boo xam ne nii euh, nekkul euh, craché wul pluie le feu maanaam tàkk-tàkkal génnee di ko mooy dragon yooyu di génne ay tàkk-tàkkal nee na loolu daal daf ko réer mais tonnerre def na quatre am na quatre défaites de suite Sa Thiès moo ko daane le 4 avril 2012 Garga Mbossé daane ko le 23 décembre 2012 Moussa Ndoye daane ko le 31 janvier 2016 yi daane ko le 4 mars 2018 waaye nag dernier combat am daf ko gagné contre Tidiane fay la ko daa euh, gagné woon loolu mi ngi amoon le 20 janvier 2020 à Linguère sama dëkk. sa dëkk la woon Linguère sama dëkk la xëy kon mais mel ni sa dëkk jig na jig na tone jig na ko war na fa delluwaat fu mu amaat beneen victoire <laughs> ma nga noonu nag sensible à la crise de l'arène pourquoi l'état ne pro ne propose pas des solutions mu ne lan moo tax jafe-jafe yi làmb ji nekk boobu ba léegi état bu Sénégal jéemul benn pexe ngir làmb ji mën a delluwaat ci anam ba mu nekkoon asam. dëgg la Mbaye Babacar sensible à la crise de l'arène pourquoi l'État ne propose pas de solution wala des solutions noonu la ko journal suñu làmb posé interrogation boobu la joxe tey nee na daal euh, ginnaaw li xew ci làmb ji euh, saison bi yéex naa ubbi mbër yi toog nañ presque un an bëriwul. en plus de sella ministre bi di ki def benn sorteem bi pour nee ne état bi lii lépp ginnaaw bi mu xewee du génne benn solution pour faj jafe-jafe làmb ci gannaaw moo ñu moo ñu ilif ñun ñëpp nag fi mu toll nii dafa jot ngir ñu andi ay solution yu palpable yi nga xamante ne bii mën na delloowaat làmb fa mu nekkoon. dëgg la Mbaye Babacar état bi moom mooy diriger lépp bu ko neexoon je pense euh, war na mën a woo euh, nit ñi ñu toog waxtaan trouver ay solution yoo xam ne ni buñ ko tegee ci làmb làmb dina jëm kanam. mën na également am na ay moyens yoo xam ne nii mën na euh, woo sponsors yi pour ñu ñëwaat sponsoriser lamb ji pour que lamb euh, delluwaat fi mu nekkoon bu njëkk. ndax booy xool fi mu toll nii promoteurs yi dañoo toggoo jiit te kenn nanguwut a féetewoo fett ga ñii nangu nañoo tëgg huis clos ñii nanguwuñoo tëgg huis clos mu nekk mbir ma nga xamante ne bii war nañ cee def ay pexe ngir. amateur làmb yi gisaat seen bopp ci làmb. dëgg la may Babacar solution daal la ñu xaar ci état bi te war na ko indi nag. bu gaaw a gaaw populaire technique et fin animateur Gandia Fama un phénomène ñu mel ni kooku daa wane boppam atum ren ji. la France série de Ndiombato Gandia Fama lu tudd di mbër ma nga xam ne ci bëre simple lañ ko gën a gën a ràññee moom nag dafa mën ambiance mën li nga xamante ne bii mooy bëre simple ba pare am gannaaw Assane. di mbër ma nga xamante ne bii journal bi nee na mot nañoo bàyyi xel ci moom ki sekk ak moom waxtaan nag mooy Abdoulaye Diagne nekk correspondant suñu làmb fële ca Kaolack sa xarit la. dëgg la Abdoulaye Diagne sa xarit yow. comme li nga ko waxee populaire technique fin animateur Gandia Fama le phénomène de noonu la ko journal suñu làmb waxee nee na Gandia Fama mi daal mbër mbër mu am tur technique na waaye tamit mën na animer trop benn euh, waxtaan nag la séq ak journal suñu làmb comme ni nga ko waxee Abdoulaye Diagne moom moo ko def. nee na moom nag rappelé na ne moom mi ngi dëkk Bitanti waaye mi ngi évoluer ci écurie Parcelles Mbooloo moom ak Franc ñoom ñoo bokk écurie wax na également fan la Gandia Fama bi jóge nee na bi mu nekk xale da doon eh, côtoyé wala da doon jege ay magam magam mi dañoo bëggoon di déglu musique reggae. Mhm. mu dégg noo boobu nag di ko répété xamul lan la nee na moo noo noo boobu fan foofu la jógee. foofu la jëlee turu Gandia Fama Fama moom mooy yàmbaa ñu fàttali <laughs> day na sortie du ministre Malick Sall sur France 24 les lutteurs de Kaolack très très en colère mu mel ni mbër yi ci kaw dañoo mer a mer ba futtu Mbaye Babacar. mbër yi nekk Kaolack ñoom tamit wane nan seen euh, naqar ci li nga xamante ne bii moom la ministre Malick sàll wax teg ko ci axlu làmb mbër yi nekk foofu ca kaw nga xamante ne bii ñoom daanaka seen mbir yépp làmb la nee nañ ministre bi daal li mu wax ñu ngi koy naqarlu bu baax a baax te mënoon naa gën a wodd ay kàddoom jëmale ko ci làmb. dëgg la Mbaye Babacar mbër staff promoteur ñëpp lañ jox kàddu foofu ci Kaolack neen ñoom ñoom nag ñu ngi ñaawlu trop euh, sorti Malick Sall boobu ni mm, mu defoon ci France vingt 24. Uh-huh. Euh, journal bi nag jox na ci kàddu ku mel ni Dame Ndaw di Dieng kër de Lion Aljuma Diouf Eumeu Sène Junior ñii ñëpp jox na leen kàddu te ku ci nekk ñaawlu nga sorti ministre boobu mu defoon ci France 24. ginnaaw ba mu teglee ay défaite teg la ay défaite teg ci li nga xamante ne mooy année blanche Mbaye Guèye Junior un talent gâché suñu làmb noonu la xëy bind. suñu làmb noonu ko waxee ñëw ci ki mbër mi nga xamante ne bii amoon na départ bu baax làmb ji di Mbaye Guèye ndax amoon nañ ci moom yaakaar bu baax wante remarque bi ñu def ci moom fan euh, at yi ñu génn mooy que day teglante ay défaite ba pare di tegle ay saison blanche nga xam ne Assane kenn du ko gis mu bëri. dëgg la Mbaye Babacar Mbaye Guèye Junior défaite à saison blanche à l'appel Mbaye Guèye Junior un talent gâché suñu làmb titré Mbengue junior bi daal mais dafa stable ndax day dëgg day tegale ay défaite ay saison blanche mais également day changer ay écrit souvent ndax jógee na Fass dem euh, écrit Mbengue jóge fa nekk double les moom nag tegale na trois défaites de rang jamteer euh, yi daan na ko la le 25 février 2017 Siteu bu Aljuma Diouf daane na ko le 7 mai 2017 et Tanor bu Diourbel daane na ko le 28 juillet 2018 ñu fàttali ne Mbaye Guèye junior mi def na 12 combats 6 victoires 6 défaites. mu mel ni kon daal moom carrière am dafa nu koy waxee. carrière dafa xaw a tagga témbe amul niilu kiiwul. Euh, damay wàccul daal positiful négatiful négatif na kañ. négatiful te la ñuy jàllee na def ci journal record Bombardier. préviens le polonais Pudzianowski yi ca la mu ko wax na mu ne ko prépare toi je vais te battre Bombardier ma ngay artu polonais bii di Pudzianowski nee na ko na nga waaj bu baax a baax a baax ndax Bombardier xamal na ko ne pare na ci moom ci bépp côté te combat bi lu mu laaj jaral na ko ko te bu jàppee polonais bi nee na da koy duma daan ko dëgg la Mbaye Babacar combat boobu mi ngi war a dox ci Bombardier ak euh, Pudzianowski kii di polonais boobu Bombardier nag mi ngi koy artu comme ni nga ko waxee nee ne ko na préparé bu baax a baax ndax dafa dikk pour gagné ko combat boobu nag mi ngi war a am la 20 mars à Varsovie Varsovie moom mooy benn dëkk la bu nekk ci Pologne. te noonu nag kooku di polonais boobu daal dinay tontu ki nga xam te ne mooy le B52 de buur mu ne ko usmaan maa ngi lay xaar. waaw nee ne ko nee na ko mi ngi koy xaar ndax moom tamit xamal na Bombardier na ko euh, yan nga client ba nga xamante ne bii foo koy yekkalee dina la jaaxal. dëgg la Mbaye Babacar tontu du forax noonu la ko mën a waxee bu Bombardier waxee que ne moom na ko xaar dina ko daane Pudzianowski également euh, mi ngi koy répondre nee na ko Ousmane je t'attends ndax <laughs> Ousmane maa ngi lay xaar comme ni ko Ndeye Mbacke waxee waaye wax na te rek euh, ci combat bi nee na boo xasee ba dugg ci case bi affaire culture religion ak euh, sa fois yëpp da nga koy teg nale bëree ba pare waaw nee na Bombardier xam na ne Bombardier dafa dikk pour blesser ko gaañ euh, ba pare daane ko ci dëkkam mais nee na loolu lépp mi ngi koy sóoraale te du bàyyi mu sedd benn yoon. kon moom dafa mel ni am na ay info bu baax ci Bombardier. xam na Bombardier étudier ne ko am na ay vidéo mu seetaan xam na Bombardier li mu doon def Sénégal te mi ngi préparé bu baax pour bu ko Bombardier gagné foofu ci dëkkam. mu ngi noonu ci MMA yi desandi ba léegi ak nga xam te ne mooy Reug Reug trois questions à Reug Reug je me prépare Reug Reug moom nee na mi ngi ci ay condition yu baax di waajal combat bi nga xamante ne bii moom moo nekk ci kanamam moom nag ma nga fële ca Dubaay Reug Reug di mbër ma nga xamante ne bii macha allah moom tamit mi ngi ci ay victoire ci MMA bi ñu war ko bàyyee xel bu baax a baax ci noonu rek dama ci nuyu seex bu Reug Reug sama doomu ndey di ko ñaaral moom tamit jàmm ak salaam xam ne kenn la ci Reug Reug te fu Reug Reug dem ñooy ànd. dëgg la Baye Babacar trois questions à Reug noonu la journal record posé Reug Reug wax nañ ci préparation bi wax nañ ci adversaire bi wax nañ également ci date bi euh, euh, Reug Reug nag li mu tontu nee na mi ngi préparé bu baax a baax a baax ci ay conditions yu baax foofu ci Dubaï wax na également lu tax mu dem choisir Dubaï nee na ñoom ñi ngi staff bi ñoo choisir foofu pour mu préparer fa looloo tax mu dem fa wax na également ci adversaire am bi di Mehdi Bargi di benn iranien moom la war a daje. combat bi mi ngi war am le 8 euh, avril 2021. Euh, mu ngi noonu loolu moo nekkoon li gën a fas ci boppu xibaar yi mbay looy tàggatoo jaajëfal ñëpp ñaanal ñëpp jàmm ak salaam di leen fàttali suñu sponsor bi nga xamante ne moom la ñu àndal muy huile J'adore di huile bi nga xam ne ku jàppanteeg moom ci sa biir waañ wax naa ko sànq foo mën di dem ndam rek ngay jël jaagin jëf. asal waalo. Mbaye Ba euh, Ndeye Mbacke maa ngi lay remercier di remercier Mbaye Babacar remercier waa Linguère comme d'habitude Yacine Fall Mansour ak équipe bu Leewtoo TV yëpp di jox digg daje Leewtoo euh, internetu Leewtoo TV ba suba ak jàmm incha allah. moo ngi noonu ah, comme ni ko Assane waxee rek diwlin baa ngi noonu mooy suñu sponsor numéro un ah mooy diwlin bi gën ci diwlin nii dee leen ko consommé di leen jaajëfal di jox dig daje ëllëg ci Leewtoo TV incha allah.